avant may ñëw ci Viviane ak Titi da Samb Aji Ouza Queen Biz seen style vestimentaire démb kole na ak stade bi wala kolewul ak stade bi jaay nañ culture Sénégal wala jaayuñ culture bi damay njëkk a ñëw attaqué Wally directement li may njëkk a wax ci Wally mooy tout le temps maa ngi wax ne artiste africain yi lii mooy seen différence ak artiste européen yi waaw dama leen ko bëgg a décortiquer parce que wanewaat nañ ko démb ci affaire Wally bi démb Wally ñii ñu ngi naan waa Turquie ñoo bi ñii naan PNG ñoo ñoo se ñoo géré bi ñee naan Youssou moo waral yëf yi ñii naan euh, waa Subateel waali ndeyum bi ligi j'espère que moom xam na li xew su doon artiste européen xam nga nu muy def suy ñibbi këram rek day tiwit maanaam artiste am na fu muy toll moomatul boppam parce que ñu bari ñëw nañ ci stade bi dem démb waali moo leen fa indi bande annonce bi wala bëgg a ñëw rencontré rek waali parce que seen fans la mooy seen woykat préféré kon mu demee nii su amee maanaam yëf yi am accident ñu bokk Sénégal bokku mbégte mi kenn amuloon yéene defe naa waali dem ba ci stade bi te woyul mais su nekkee ne yàlla def na waali woyul ak lépp loo xam ne obstacle la moo ko gàllankoor ba woyul lu mënta xew waali xam na wala estafu waali xam nañ mais buñ ñu bàyyi dans le doute ñu nekk di dute ñun bajo bajo yi ku ci nekk toog fa nga toog di ko titré na la neex ku ci nekk di inventé na la neex ku ci nekk di waxee na la neex day yokk ay problème day yokk ay détails day yokk wax ju sew te tollootuñu foofu Wally Seck nekk na artiste boo xam ne waxtu wu demee bu bindee tiwit mu wër la tour du Sénégal nit ñi lan moo xaw carrément qu'est-ce qui se passe lan moo tax Wally wayul la xale ba woyoon fan yi contagul Wally wayul wax ja yegsi na Wally wayul lan moo xew Wally tiwital am na yoo xam ne boo ci tollee da ngay respecté fans yi d'une manière générale bu doon artiste européen saa yu ñibee day tiwit lépp lu ko mënta dal ci programme bu ñibbee këram da koy Facebook da koy tweet fans yi jot ci à temps réel ñu xam li xew buy bu toj ku ne jël wàllam mais ku ci nekk yaa ngi koy traité di gauche à droite di bàkkaaru di yàq der détail kaa te ñun xamuñ ba léegi lan moo xew. bu loolu jàllee ma ñëw ci style vestimentaire xale jigéen yi nee nañ Viviane moo jël raw gàddu gi parce que moo sol lu méngoog terrain de basket xaw ma terrain de football loolu ngeen jàpp. bu nekkee terrain de football Viviane moo jël raw gàddu gi ñi ci des ay robe de mariage la ñu sol. ñi ci des ay kin biis ay ay kin biis ay aju ay ña ca des ñoom maanaam buñ doon ba ñuy dox seeni robe dañ ko dañ leen koy teel ñuy watatu ñooñu mën nañoo wax ne ñoom ay Kylie Jenner la ñu indi. mais bu ñu demee nag ci wàllu culture est-ce que Viviane moo jël raw gàddu gi culture nag laa wax jaay Sénégal jaay le drapeau jaay sunu culture ñun est-ce que ñun sunu culture ay ay journaliste international ñëw di la seetaan. lu mel ni laaxeen di mbalax est-ce que ñoom ni ñu solo la ñu war a solo loolu mooy sunu culture